mooy euh, gis nañu li jeexatal ci muqaddima bi maanaam introduction bi cinquante cinq bunt yi nga xamante ne moom mooy tax euh, nit ngëmum yàlla yokk mm-hmm. ngëm yàlla am yokk mm-hmm. loolu euh, weesu woon nañ ko niki noonu am na yeneen yoo xamante ne Cheikh Omar radiyallahu moo ko ci yokkoon mm-hmm. mooy juróomi mbir yoo xamante ne day njariñ la ci dëddu àdduna voilà niki noonu am na tamit ay mbir yum ci yokkoon yoo xamante ne képp koo xamante ne say mbir yéwén donc voilà war nga ko am niki noonu wax na ñi nga xamante ne yàlla dafay ànd ak ñoom mm-hmm. subhaanahu wa taala foofu la jee loolu la jeexale woon bunt bi ni ko kon nag duggoon nañ tamit ci bunt bu njëkk bi bunt bu njëkk bi maanaam daf koo def ci di tontu ñu baax ñu nitu yàlla nit ñu sell ñu borom yi nga xam ne dafay xam yàlla lañ subhaanahu wa taala te ragal nañ ko te dinañu topp li yàlla bëgg ñu ngi bàyyi li ñu tere te ay borom xam-xam la ñoo xam te ne dañuy liggéeyal diine ji ñoom la ñuy wax nitu yàlla yi nga wax ne képp ku leen dimbali yàlla dana la dimbali képp ba pare képp ku leen dimbali dimbali mu loolu li muy tekki mooy yaa ngi dimbali bor bu subhaanahu wa taala képp koo xamante ne da leen a seetaan bette nga leen bàyyi leen jàppale woo leen yow xamal ni euh, voilà da ngay waaru loolu yow nooy na waar daal mm-hmm. waaw ba noppi tamit da ngay jax-jaxal ñi nga xam ne xamuñu ko mm-hmm. rawatina ci kanam ci mërëb boo xam te dañ leen dañ laa soxla ci loolu ni ki noonu mm-hmm. euh, mu tàmbali woon di indi aay yi nga xamante ne ñoom te tegtale loolu ak xadis yi nga xamante ne ñoom ñooy tegtale loolu ci biir xadis yooyu ci la doon waxee ne képp koo xamante ne mm-hmm. da ngaa défendre sa mbokk jullit ci jëw boo xamante ne dañ ko doon jëw wala bokk ñu yàq deram foo xamante ne nekku fa mhm. sa borom sa borom dana la aar mhm. maanaam yowmal qiyaamati dana la goreel ci sawara niki noonu dana dàq mhm. sa maanaam lépp daal la naara dal àdduna ak àllaxira suñu borom subhaanahu wa moom itam dana la aar ndax dana dimbali maanaam jullit ñi mhm. waaw ni ko noonu am na yeneen xadis yoo xamante ne insha allahu taala buñu pare amaan ah, mu ne war waa kon foofu la njomoon mhm. ñu ngi ci beneen xadis ci xadis bi nga xamante ne mhm. mu ne war a waa soloon parce que dafa jëkk indi xadis boo xamante ne imam ahmad rahimahullahu taala moo ko soloo mu nekk isnaad xasan ginnaaw gi mu indi xadis boo xamante ne ah, ah, imam abu dawud rahimahullahu taala moo ko soloo tam ci isnaad xasan après riwaaya imaam eh, ibnu abi dunya rahimahullah mais boobu mawquufan la dafa yem ci saxaaba bi léegi nag muy indi beneen xadis boo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mu daan ne wa rawaa soloona abu daawuda imam abu daawuda as-sijistani rahimahullah marfu'an xadis boo xam ne dañ ko ci ba ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne maa min muslimin amul benn jullit boo xamante ne yaxzulu dana beccangal musliman jullit fii mawdi'an ci bërëb boo xamante ne yentahaku def ñu ngi yuntahaku ña ngay xotti fii ci bés ci bërëb booba mm-hmm. xormatahoo orma jullit booba wayen taqasute wayen taqasute ñu ngi wàññi mm-hmm. ñi ngi wàññi fii foofa min ardihi ci deram mm-hmm. illaa lu dul xasalahu llaahu buur yàlla dana ko beccangal taala buur yàlla bu kawe bi fii mawdayin ci bërëb boo xam ne moom itam yuhibbu doon na sopp fii ci bërëb boobu na soo taxoo buur yàlla dimbali ko fa képp ko xam te ne da ngaa seetaan jullit mhm. ci place boo xam te ne dañ ko fay tuutal mhm. di ko fa dayanal yow mal qiyaama maanaam yàlla tamit yow dana la fay loola bis dina ñëw nga bëgg lool yàlla dimbali la yàlla bàyyi la seetaan la hmm. ndax seetaan gi nga seetaan jullit mhm. wa ma min muslimin amul benn jullit boo xam ne yan yansur dana dimbali musliman jullit fii maa doon ci bërëb boo xam ne yan taqasu ñu ngi doon nañ wàññi fii ci biir bërëb booba min ardihi ci deram mhm. maanaam réputation boo yun taxaa te ñu ngi doon xotti fii ci bërëb boobu min xormati ci ormaam mhm. illaa lu dul nasarahu llaahu dana ko dimbali allahu buur yàlla taala kaynam fii fii mawtinin ci barab ci palaas ci ay jotaay mhm. yoo xam ne yoo yuhibbu dana sopp fii ci bërëb boobu nasarahu ak dimbalim yàlla dimbali ko mooy mooy contraire aussi képp koo xamante ne place yàlla maanaam bërëb boo xam dañ fa doon wàññi orma jullit mbaa ñu fay yàq deram mhm. yow nga dimbali yàpp nga dimbali jullit boobu taxaw ne danaa ko defaan ndax yàlla tamit dana la dimbali jour boo xam xamante ne di nga bëgg lool lool lool yàlla dimbali la mhm. laa ilaha illallah qaala wax na ash-shaykhu cheikh boobu imaam muy muy cheikh mooy Abdul Wahhab Ash-Sha'rani rahimahullah wa radiya anhu kon noonu la tudd Abdul Wahhab Abdul Wahhab Ash-Sha'rani radiyallahu anhu fi al-Bahr al-Mawrud loolu téere boobu Bahr al-Mawrud Bahr al-Mawrud waaw téere la waaw téere la bu mu bind di wax ci ay kóllëre goo xamante ne jullit ñi dañ ko am ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xamante ne ay digal la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digal jullit ñi mu ne tout le temps loolu lay wax quoi ndax ci alfil ahadi fil euh, voilà fil mawa waaw euh, ahudul muhammad yi maanaam kóllëre naan ñun kat jullit ñi dañoo fas kóllëre ak yeneen bi saa sam ci ne nangam la ñuy def hmm. dañoo fasante wóllëre ak yeneen bi saa sam ci ne nangam la ñuy def voilà yooyu noonu nag ci la bind ay téere téere yooyu la dajale yëpp ba dajale ko bind ko téere voilà avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam voilà hmm. moo tax mun voilà nee na imam Ash-Sha'bi radiyallahu anhu xutbu bu mag la hmm, waaw sëriñ bu rëy rëy rëy borom xam-xam rahmatullah alayhi rahmatullah waasa waaw xanafi yi mazhab la ci borom xam-xam yu mag yi sax la bokk moom ni ki noonu mais taalibi imam as-Suyuti la waaw ñoom imam as-Suyuti Zakariya Ansari ñoom seen taalibi la taalibi ni ki noonu ñooñu nag ñooy taalibi al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani waaw maanaam moom ay taalib taalibi taalibi ibn Hajar yi la alhamdulillah ni ki noonu par contre gis na yeneen i sëriñ yoo xam sëriñ yu mag lañ ku mel ne Euh, ñi nga xam te ne tamit moom taalibe la aussi ci taalibe ñi nga xam ne ñoo daan ànd ak Cheikh Ibrahim al Matbuli muy benn xutbu la woon tam bu tam bu mag d'ailleurs sax bind nag al axlaaqul matbuliya mhm. ci ab téere bu mu ko tuddee maanaam jikko yi yi nga xam te ne ci ci ta gaa yooyu ñoo koy wax mu ne ñooñu jikko yi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yorom la ñuy wax maanaam dañ koo topp za ci biir ak ci biti topp ko topp ko loo gis mu mais nag bi mu koy tàmbali dañuy jikko yi may lim dama leen di wax ci teel ne leen daanaka gisatuma ku ko yor mais nag alhamdulilah yàlla def na man ma yor ko maanaam pour joxe exemple que moom yor na ko. parce que tamit nit ñi soo leen dee wax nangam baax na nangam kii te waxoo leen ne leen am nañ exemple vivant bu mel noonu ni ma leen di wax ni nit ñi dañuy defee ne loolu ay histoire la ay ay ay lépp la loolu mënatu la ne yooyu. mais boo leen leen kii nii diw sàngam def da koy def <laughs> ñu xam ne loolu mën nañ ko. <laughs> waaw moom nag loolu la def <laughs> ba pare taalibe ñooñu la ba pare tamit. Cheikh Seydi Ali al-Khawas rahimahullah wa radiya anhu moom ummi yu la comme Cheikh Abdou Aziz Dabakh la ma d jàngul woon kiiwul mais nekkoon xut bu jamono moom tamit mu taseeg moom mu nekk sëriñam mu jaayloo ko téere yëpp sa téere yëpp jaay ko mu jaay ko nee na mu jaay téere yëpp mu dikk tarbi ko tarbi ko tarbi ko tarbi ko après nag ci lay doog a jëlaat yeneen téere yi sinon après mais téere yu bari la bind borom xam-xam la ci wàllu charia ci wàllu xaqiqa tasawuf maanaam borom vraiment kàngam la masha mm. allah ni radiallahu anhu mm. voilà ba pare bindu nuy téere yu bari ci di défendre nit yàlla yi et cetera léegi kon ci téere boobu mu ne albahru mawrud mm-hmm. mu ne axada jàpp naa leena ci ñun al ahdu kóllëre maanaam ñu ne yenente bi salaai sallam mm-hmm. an ci nujiba ñuy tontul an mm-hmm. a immati diini ñu nujiba an ci ñuy tontul a immati diini njiitu diine yi imaamu diine yi minal ulama yi ci borom xam-xam yi wax suufiyati ak suufi yi mhm. maanaam ñu sell ñi nit yàlla yu sell yi ak borom xam-xam yi ñu leen di défendre mhm. juh dana suñu dayak coono wala nas yi te bu ñu wengal abadan kenn maanaam bu ñu may suñu nopp abadan kenn li xawlin ñeel benn wax man li xawli man ci ñeel waxu koo xamante ne mhm. taana day jam fii fiihim ci ñoom képp koo xamante ne day jam borom xam-xam yi maanaam di leen sikkal buñ la bàyyi sax xel buñ sax bàyyi xel la ngay wax mm-hmm. mu ne lee ilmina ngir xam gi ñu xam ne am na hoo lii mbir te mbir mooy maataana du jam fiihim ci ñoom mm-hmm. boroom xam-xam yi kenn du leen jam illaa lu dul waxuwa moom kat xaasirun dafa gàtt mm-hmm. dafa gàttalu dafa gàttañu an maarifati wëllif xam madaarikahum seeni dayo ak seeni soobuwaay maanaam <clears throat> seen maanaam seen li tax ñuy jëfe wala ñuy wax li ñuy wax moom loolu lañ xamul boroom xamul waaw maanaam ku ko xamul mooy tax moom maanaam képp ku leen di critiquer daa fekk looloo tax parce que da gis mu wax benn affaire wala mu def benn affaire comprendre loolu tax def mel ne Haarun rek ak yonent yàlla sax ci benn sens yonent ba mu ne yonent ne ko damay ànd ak yow mu ne ko damay mu ne ko dinañ ànd waaye bu posé question. non non xadir. xadir dama jóg xadir la alayhi salaam waaw. wax nga dëgg. xadir alayhi salaatu salaam alayhi mm-hmm. suma topp nag inna raad aji delloo alayhim ci ñoom laa budda munta ñàkk. am yett fia ci mu fay allah bur yàlla nuuraxoo leeram mhm. kooku mënta ñàkk mhm. képp koo xamante ne da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay wax wax ju ñaaw mbaa ngay naan da ngay réfuter boroom xam-xam yi seen ay thèse mhm. seen i wax boroom xam-xam yi wax seen i wax ba pare nga naan dama koy réfuter <laughs> kooku mënta ñàkk yàlla fay sax leer segam kii nga xamante ne moom am na xam-xam mais day j day wër waxu boroom xam-xam yi rek di réfuter di wër di réfuter segam yàlla fay leeram lan ngay xalaat koo xam ne xamul dara ba pare naan la ndax li yàlla ko ci alquran la ne wala borom xam rek ko xalaat kuy waxee noonu lan ngay xalaat ci ku mel noonu comme ni ko sama mbokk wala fi di def. c'est encore pire. voilà c'est encore te moom xamul dara déjà moom xamul dara mais war naa déglu kon li borom xam-xam yi def mm-hmm. dégg nga. Mm-hmm. mu ne wayaadima te dana ñàkkal an nafa njariñ bi mu àllfaati yi ci ay ci ay taalifam. li suu i adabi wi ngir ñàkk tegginam mooy ñaawu tegginam gis nga euh, fële ci kaw boo xoolee li suu i adabi yi mooy fi ma la waxoon nga changé ko dégg da nga fàtte voilà loolu la mm-hmm. fii fii tamit gis nga lii mm-hmm. la mm-hmm. mais c'est que maa ànd ak ne hmm, maanaam kon kooku li mu wax fii daal mooy Euh, dañoo jàpp kóllëre ci ñuy tontul ñi nga xamante ne ñooy njiitu diine yi ci boroom xam-xam yi ak nit ñu sell ñi suñu dayeg coono lañ war a def loolu te waruñoo bàyyi xel waruñoo may nopp képp koo xamante ne dafa leen di jam ndax xam gi ñu xam ne saa yi ku leen jam rek dafa fekk ne da ngaa gàttañ maanaam yow da ngaa tuuti maanaam sax ñàkk a xam ñoom seeni sóobuwaay seeni euh, maanaam seeni façon jëfin ak seeni waxin ak fa ñu jaar ba wax li ñu wax ak def li ñu def yow loolu nga comprendre mu ne topp nag nañ xam ne képp koo xamante ne da leen di delloo naan day référé seeni kees munta ñàkk yàlla fay leeram ba pare ñàkkal njariñ waye addima te mu ñàkkal an naf a njariñ bi mu allifaat yi ci ay taalifam li suuy adab yi ngir ñàkk tegginam ngir ñaaw tegginam ma man ànd ak ñi nga xamante ne ñàkk teggin gi mu ànd ñàkk teggin ànd ak ñi nga xam ne ja'alahum def na leen allahu bur yàlla taala kaana qudwatan ñu nekk ay royukaay li ibaadihi ngeel jaamam ñeel jaamam yi mm-hmm. ilaa yawmil qiyaamati ba bisub mm-hmm. yàlla moom loolu def kooku kenn mënu ci dara yàlla ñi mu def ñu nekk royukaay des exemples ñooy borom xam-xam nga xam ne dañuy jëfee seen xam-xam xanaa gisoo Euh, euh, <laughs> loolu loolu loolu moo tax subhaanallah xattaa ci benn dëkk sax benn dëkk kese boo xoolee wala benn koñ nga gis ñaari boroom xam-xam fa ñaari borom xam-xam ne fa kenn la ñu amul xam-xam mais kenn borom benn borom xam-xam bi euh, nga gis ko muy mel ni kuy xeex ki ci des wala muy jéema di ko tuutal wala mu koy doyadal lu dul yàlla day wàññ day dindi barke xam-xam moom yëkkati ki ci des waaw kooku moom loolu moom ngay gis foo gisee ci koñ rek waxuma la dëkk wala kër kese loolu am fa nga gis yàlla yëkkati kenn ki ki ki ki ci des nga xam ne moom mooy moo nekk yàlla tuutal ko kooku même looy nga xalaat ci dëkk au niveau national international et foo jaar loolu la yàlla def te loolu ay exemple yu bari lañ ci am ño xamantene ay ponkal lañ borom xam-xam mais yàlla feeñul seen xam-xam amna ño xamantene tay fo jaar fo la laaje ñu ne la ki moy diw ah ko diw ñëpp mas nañ ko dégg comme al khazali as-Suyuti Ibn Hajar al-Asqalani nom al al-Bukhari Muslim wa te ñooñu amon nañ ño xamantene dañ leen doon ki ci seen jamm tay borom xam-xam lañ mais ñooñu ñi leen di xam mooy bor mooy ñi nga xam ne dugg nañ vraiment dans le milieu du xam-xam ñoo leen di xam. par exemple As-Suyuti ko doon comme As-Suyuti par exemple boo xoolee al euh, du xeex sax mais genre. jàpp jàpp wala jàppalante la. mooy comme euh, bu bu ñu amoon ak ak imam As-Sakhawi rahimahullah par exemple. As-Sakhawi waaw te As-Sakhawi rahimahullah pourtant ci taalibe Ibn Hajar yu mag yi la bokk rahimahullah wa rahmatullah mais te pourtant borom xam-xam bu mag la. subhanallah mais xoolal yàlla rek as-Suyuti la gën a yëkkati waaw wallahu aalam me hikma bi amana na loolu la mooy loolu amaan loolu même même même ibnu Ibn Taymiyya ibnu Ibn li yàlla def mooy ñom ñom Cheikhul manam mom borom xoxom yu mak yi mu doon dugg léeg-léeg ñoom Ghazali ñoom Cheikhul Akbar ñom Fakhruddin arrazi Ah, et cetera da gis ñooñu yàlla da leen yëkkati par rapport ak moom ànd ak moom xam-xamam ni mu toll am na xel dana wax ne Ibn Taymiyya musuñu musuñu gis ku parce que Ibn li mu daan mu ne lim bu toogee wax benn maanaam ci benn jotaay li ci daan wax ci xam-xam day mel yi ñoo daan ñëw ci moom muy tànn di jël naan lii lay wax lii lay bàyyi lii lay wax lii lay bàyyi maanaam moom li mu mënoon a def toog ci benn jotaay di ko wax keneen ku dul moom munu ko woon ci ay jotaay yu bari ànd ak loolu subhaanallah xoola ñi ñu gën a xam moo boo xoolee Ibn Ibn Taymiyya ban téere référence lañ ko xamal ci téere amul benn domaine buñ ko xamal ne kii domaine bii kat téere référence am la du ci aqida à moins que aqida bu baaxul du ci euh, euh, euh, fiqh fiqh amul voilà du ci fiqh du ci du ci hadith du ci tafsir domaine yu mag yëpp amul benn boo xamante ne dañ naan Ibnu Taymiyya référence la ci ndax téere sàngam la ci bi nu mu nekk téere référence comme niñ ko xamalee yeneen borom xam-xam yu mag te yooyu da koy indi le fait que ngay dugg borom xam di wax ci yooyu ñaaw di hmm. waaw yooyu da koy yooyu nag ak koo mën a indi gis nga tey boo leen toogoon non loolu bala nga koy xam hmm. loolu loolu te te loolu seetlu ko rek comme ni ma la ko wax sànq ci koñ yi da koy seetlu ci dëkk yi da koy seetlu ci xattaa sax bu gaa ay ustaas yu bari buñ nekkandoo ci benn rajo nga gis ko ñuy ñuy xeex kenn benn ustaas kese benn ustaas da gis yàlla day day dindi ñoom ñépp seen barke yëkkati ci ñi xam ne moom lañuy ñuy xeex et cetera et cetera loolu moom yàlla moo koy def loolu nag te te lo te te daf jafe ñi nga xamante ne seen seen seen yéene seen loolu dafa jafé ci ñom ñu nangul ñeneen ñu seen loolu donc le mot. indi bu voilà souvent ne exemple bu mëna la exemple amna amna amna amna amna amna amna ko xamné xam nga ko ko mhm. mais par exemple mo and ak xam-xam bu bi mu mhm. mais même bi mu xattaa dëkk bi mu dëkk koo laaj fu ko fa jógee dana noo xamuñu ko. koñ bi mu dëkk waaw. subhaanallah. te bu mag man kay xaw ma ko sut man moom xam vraiment avec objectivité bëriwul en tout cas ñu sut c'est rare nga gis ku ko gën a ku ko gën a xam vraiment quoi waaw c'est vraiment rare. waaw. ta ta taalibeem néew néew nañ te mu noonu. waaw. subhanallah. Mm. yàlla rekk ay maye. waaw dégg nga. Mm-hmm. waaw. ànd ak ñi muy ci am na ñoo xam te par exemple yàlla yëkkati na seen biddiw ci lu amul benn werante. Mm-hmm. waaw comme mel ni xoolal imagine comme tey sëñ Mansour sëñ Mansour foofu xam nañ ni daara yi mu tabaax yi mu yi mu yi mu yi mu ko xam. en tant que kii boroom xam-xam bu tasaare diini tasaare xam-xam daara yu bari ay téeméeri téeméeri yi bu ay parce que benn nit sax lay former kooku dem defar ay téeméeri daara la ngay xalaat ci <laughs> subhaanallah ah ay ñoom ay ñeneen ak ñeneen pourtant ay ay xoolal ah, ah, ay ñoom par exemple ay oustaz Alioune Sall ay ñoom Makhtar oustaz Makhtar Sarr ñoom oustaz Adi Niass et cetera ñooñu nga xamante ne subhaanallah ay ñoom Taïb Socé gars yi nga xam ne yàlla def def na vraiment barke ci seen ci seen xam-xam daal ak ñeneen am na ñeneen ñu bari ci ci sëriñ yi ak oustaz yi dama joxe exemple ñooñu loolu. mais voilà mais boo gisee gars yi ku leen ku leen di xeex rek da gis yàlla day dindi sa xam-xam yow day day dindi barke wu sa xam-xam. ko ñoom ay eh, ñu commentaire bi ñu bëgg a gudd voilà mu ne qaala wax na ne waxlam na nga xam ne yaa axi yow sama mbokk annahu li mbir te mbir mooy lam yablughnaa mhm. musu ñoo jote xatt benn yoon min ahadin ci kenn min al ulamaa yi ci borom xam-xam yi annahu nekk moom kat tasadda mhm. féttéerlu na jóg na day jóg li radd ñir tontu ala ahadin ci kenn min a'immatil islam yi ci njiitu islam yi ci imaamu islam yi amul mhm. amul benn borom xam-xam boo xamante ne vraiment ci ñu mag ñi la bokk nga dégg mu naan dafa jóg nee na day bind téere wala day kii ngir ngir di réfuter waxu boroom xam déedéet mën na nag di def leen di segg maanaam bu yegsee ci benn question mu segg wax ji daan ah, wax ji kat diw wax na ci nangam mais nag li gën a feeñ li gën a leer incha mooy ne nangam moo gënoon a dëgg. réseau voilà yooyu da koy def voilà waaye moom nee na ñi ñu baax ñi daf leen bëgg di leen topp nee na ñu baax leen voilà dafay jël référence ci ñoom voilà voilà loolu la voilà loolu la il faut voilà il faut faire comme dégg nga mu ne bal li fi nekk mooy yanta xibala gis nga waa kay dañuy wuutal dañuy sàqul lahum ñeel leen al aju yu bata tontu alxasanata bu rafet juhdahum seen day ak coono commencé naa kem li nga xam ne noonu la def al cheikh imam ba jalaaluddin al mahalli imam al mahalli rahimahullah kooku mooy kan moo bind euh, aljalaalayni xam nga boo déggee tafsirul jalaalayni jalaaluddin almahalli ci sëriñu imam suyuti yi la bokk rahimahullah sëriñu imam suyuti voilà moom dafa tàmbali jalaalayni tafsirul jalaalayni dafa tàmbali eh, dafa bind faatiha bi ak tàmbali sooratul kahf fi jëm suuf pour nag wëlbatiku yeggale jóge jóge ci alif lam mim baqara ba ci ba fin sooratul isra mais dernière partie bi defu ko maanaam bi mu yeggee ca naas yi ba balaa mu doon reprendre la ci la génn àdduna mais daf ko bind bind façon boo xamante ne façon bu rafet la nga xamante ne yi moo tax euh, am na kenn ci borom kooku yi mu laa ku ma ci dégg tafsirkat bu mag rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a muy wax mu doon wax naan su ne mu ne mu ne euh, su su tafsirul Jalalayn vraiment. tax bok na <laughs> vraiment li nga je ne parce que vraiment ko amone capacité bi xam ne dafa dama dama tafsirul mhm. ne même utiliser fi'l verbe mhm. sax dafa am lu même utiliser verbe au lieu de euh, voilà. C'est dans un but bien précis. Voilà. Voilà. Au lieu d'utiliser un nom, nous utiliser un verbe. C'est d'avoir un place boo xamante ne nous nañ fa utiliser phrase nominale mu def phrase verbale. donc la phrase verbale mu def phrase nominale. tafsir kat la woon. kan almahalli ah waaw ak borom xam-xam bu mag ci yeneen domaine Shafi'i fiqhu Shafi'i ci référence yu mag yi la bokk sëriñu Suyuti kay hmm. du ko ndaw hmm. waaw rahimahullah léegi imam as-Suyuti yi nag moom moo ñëw bi mu fekkee al-Mahalli rahimahullah génn àdduna te gis ne yéggalewul woon tafsir bi mu xool tafsir bi xool ni nga xamante ne loolu mooy kii bi euh, méthode bi mu doon utiliser style bi ak seen tax bi mu reprendre ko yeggale ko ak moo tax ñu tuddee ko al-Jalalayn ñaari jalaal yi manam jalaluddin as-Suyuti ak jalaluddin al-Mahalli motax tax ñu tuddee al al-jalalayn tafsirul jalalayn jalal nak mu jalal mu moy ku mag ci diine ji mooy Jalaaluddin mag ay mbir ci diine ji deeng kon imam al-Mahalli rahman fi sharh ci sharh bi muy sara Minhaj Minhaj bu al imam an-Nawawi mu xam nañ Mhm. rahmatullah mhm. xam waaw <laughs> ah. rahmatullah alayhi rahmatan waasi'a kooku moom mooy ci ñu mës ci ñu mës ci ñu fi mës a jaar mhm. rahimahullah taala yàlla ram ne raxima yàlla na ko gër ah, ànd ak quarante six la dund subhaanallah mais rahmatullah alayhi rahmatan waasi'a vraiment cheet liggéeyal liggéeyal la diine gi xoolal Tajuddin as dane damaa dem fi parce que moom fekkewul naw en fait bi mu génnee demee di seet yi naw yu fekk naw yu génn àdduna mu ne ma laaj fan la fan la daan toog di jàngale mu ñu ne ma fii la ma toog fa euh, euh, raay fa dindi sama yére ci ginnaaw wéeru fi mu wéeru fi mu doon wéeru ngir barkeelu ci ci place naw yi boobu mu ne an naw yi li ci gën a yéeme rahimahullah moy vais partager. dundum nonam mom bo partager won dundum limu ans c'est-à-dire que nga bolé ci temps bi mu nekkee lire. nga bolé ko ci ak temps bi mi je ak temps bi mi julli di lépp nga bolé ko ci ci biir temps bi nga nga diviser ko par le nombre de pages yi mu bind ci di nga ne dana bind pages Hein Euh, euh, euh, maanaam par bis bis bu nekk di gis ne non non non déedéet bis bu ne boo ko bis bu nekk li mu bind dangay ngay da non non maanaam nit moom subu kii nee man manuma koo bind par jour loolu rek mënuma ko bind ci bis bi. ok loolu la te moom daf bind di jàngale di naafi la boole ci. waaw di jaamu yàlla. waaw di def waaw ak i di def lépp. moom même mu ne mu ne moom li li mu bind mënuma mënuma bind mënuma ko mënuma ko mënuma ko maanaam sama dund yépp mënuma ko cee liir moom nag léegi nan la defoon moom ba bind ko waaw alhamdulilah am na ànd ak ànd ak eh, eh, eh, mazhab Shafi'i moom moo ko tegaat moom moom moo ko kii daal maanaam moom moo ko segg génne ko moo tax bu ñu waxee sëriñ ci Shafi'i maanaam moom ak ar-Rafi'i rahmatullah alayhima suñu amee benn position ci mazhab Shafi'i même même même position boobu su fekke dafa wouté ak li imam Ash-Shafi'i ci bopam wax rahimahullah ñom liñ wax la ñu jël moy mazhab Shafi'i wa tellement ñom manam ni ñu maggé ci ci mazhab bi waaw subhaanallah ba pare xam nekkon soufi bu ma rahimahullah taala fa so bu nekk borom xofu ma ak te nekkul suufi te mënu nekk soufi lool amul amul amul amul kenn ku borom xofu xam te nekkul suufi amul amul dégg nga mhm. léegi kon munam bi muy ta bi muy chara mu ne kon al jala jalaluddin al mahalli rahmallah bi muy chara minhaj bi minhaj téeri fiq la mhm. ci bu bu imam an-nawawi ci char ci ci ci ci mazhab shafi'i mhm. dégg nga mu ne daf ne fa yoxmalu def na yan def na yanu def na yóbbu kalaamul mu àllif kàdduk aji bindu ji aji taalif ji te mooy imam an-nawawi ala ahsanil ahwal ci gën jaa rafete melo min xayri izhaarin ci lu àndul ak di di jéem feeñ li tawridil i'tirad ngir di rotal ay ah, al ah, tawrid di rotal al i'tirad di maanaam ah, di di di kontar di di aka gaaral alayhi ci kawam wala taqabu maanaam te deeful ñëw naan eh, di jaar ci ginnaawam naan la mu wax daal wax ji daal dese naa kii daal xaaral ma woon di di di naan daa am leneen loo cay teg di ndax ndax wax ji da xeyna na baaxul wala yoy wala xattaa mbete mune ne xattaa mbete in gaba xaaba bu faddo talabatul ilm talabatul ilm sakku kat xam-xam xami nga xamantene la yash manam même bu fekkente ne boroom xam-xam maanaam ñiy sàkku xam-xam sax laayas aruuna yëguñu xamuñu gisuñu bil jawabi ci tontul anan Nawawi buñu mëna tontul Nawawi manam même bu fekkente ne hein manam même ñom sax bu ñu xoolee maanaam bu in raaba bu fàddoo tala voilà talabatal ilmi aji way sàkku yey xam-xam wa même ñoñu sax bu fekkente ne ñi sakku sàkku xam-xam manam ab talib du fi ñëw xol wax ju imam an-Nawawi rahimahullah xamul fan la ko tek xamul wax ci fan même bu fekkente ne xamul sax lu mu ko mën layal sax bu mu bu mu def lolu na am teggin daal mu ne mu ne fa radiyallahu yàlla na yàlla gërëm an ahlil adabi ñeel maanaam yàlla na yàlla gërëm fa radiyallahu an yàlla na yàlla gërëm ahlal adab ah, ah, ahlil adabi ñooñu teggin wal insaafi ak ñi nga xamante ne dañuy bàyyee dañuy am xel mu leer ba bàyyee ku nekk la nga moom mm-hmm. mu naa ilaa an qaala ba fa nga xamante fa la doon wax naan من هو كان نكون حسن الحسن البصري رحمه الله تعالى يالله يالله يرم ام حسن البصري خمن خمن نكو تابع بو ماك بوبو بو نوخي الحسن تي تير فقيه موم نانتي جوبل يقول دا نان وخنان اذا بلغك بولا جوتي نان شخص جوغي تي نيت انه نمم كات اخطا جومنا في مساله تي مساله فتم فتمع به نغا فخه با داجيك موم وارد عليه تنغا غارل كو ذلك الخطا جوجل نجومتي fa in ankarahu bu fekkente ne danga ka ah, daka daka weddi mhm. fa saddiqhu na nga ko dëggal na nga ko dëggal mhm. fala yajuuzu du dagal lakk ñeel la nisbata zalika askana lay loolu ilayhi jëm maanaam boobu lañ juumte ilayhi jëm ci waajooju ba'da zalika ginnaaw loolu mhm. wa in lam bi bihi te waaw maanaam su dee nit dañ ni la daa juum ci tel masala utal moyen boo def ba dem ba dajeeg moom soo dajeeg moom nga ne ko ah yow kat dégg naa masala sàngam nangam nga ci wax mu ne ko bu nee nag bu nee déedéet ah non non non loolu d'accord ma ci wala loolu waxuma ko wala yooyu kon nag léegi neen aha ah, ah. wala boog même bu dee wax wax maa ko waxoon mais gis naa ne damaa juumul léegi bul bul waxati ne moom day wax loolu comme tey boo déggee benn ustaas wala benn sëriñ wax ci benn question juum nga xam ne kii dafa juum ci question bi ñu dem at wala ñaar at wala quelque jamono nga at wala benen waxtanam plus tard mu rectifier wu ci lolu manam moy même bu fekkul da waxul da mais ça ça voit ça voit que avis ci question bi wax mais bi wax parce que légui manam bana bana avis <laughs> parce que avis bobu nekatul avis kon lutax nga nan voilà Moi, mu ne fa wa in lam tajtami maanaam wa in lam bu fekkente ne nag ni maanaam wa in bu fekkente ne lam tajtami dajewuloo bi ci moom faxmil kon na nga yanu na nga yóbbu kalaamahu kàddoom ala sab'ina mahmalan ci juróom-ñaar fukki yóbbuwaay maanaam ci juróom-ñaar fukki soixante-dix maanaam lu lu maanaam bi mën a yaru hmm. maanaam c'est mooy <laughs> suñ ne ma Moodu wax na nangam Eh, man ma xamne ne wax ji bu mu ko jëlé dans son sens apparent erreur la man li nga xamne ne la wara def moy dama wara fexé ba dajé muur mhm. su ko manul mhm. su ko manul légui damay xol 70 sens yu wax ji mën am parce que dafa am sens apparent mais amna ay sens figuré yu bari sens caché wa yu mën né ne ay sens figuré mhm. sens figuré nak lay wër ba ba ba trouver ci 70 sens waaw waaw mhm. bu amee benn sens bu jub mhm. bu mën a ànd ak euh, wax ji rek mhm. ma jël wax ji ne kon lii amaan na lii la ci dugg ngir rafet njort ngir tamit defar seeni biir surtout bu dee borom xam-xam yi. non Hasan al-Basri waaw mu ne fa in lam taq naa mu ne bu fekkente ne fa in bu fekkente ne lam taq naa dalul naf saka sam xel wala doyluwul naf saka sam sa bakkan mhm. sam xel bizalika ci loolu mhm. farji na nga dellu ilayha jëme ci bakkan bi bi law mi ci ci ko wa qul laha nga wax ne ko mhm. sa bakkan bi yaxtamilu ah yaxtamilu yanu na kalaamu kàddu axi sa mbokk mi sab'ina mahmalan juróom ñaar fukki yenn waay maanaam juróom-ñaar fukki maanaa yu mënoon a yanu mhm. walla tax mi lii te yow jéemu ko ci yenn yan ala waaxidin ci benn min xaa ci juróom-ñaar yooyu mhm. intaha fa la wax ji jeex maanaam boo xoolee soixante-dix sens te trouvé la ci benn mhm. léegi nag wala ba tiil sa xel wala boog doyu la neel neel sam xel sa bak ko ah saa waay maanaam tuumaalal sa bopp neel e yow nga gis soixante-dix sens yoo xam te ne waroon naa waroon nga ko mën a wutal sa mbokk mi ci waxam ji

fa an mhm. fa ulima mhm. ci lañi xamé na annahu ci li yor woor moy la yajuz baganu lana ñel ñu hmm mhm. al khat di top hmm aka aka aka di wala ala ahadin ci kenn min aqranina ci suñu mbok suñu masi bi mujjere di kalamin ci hmm juste maanaam ci ci ci simple kàddu goo xam ne nasma'uhu dañ koo dégg anhu ci moom maanaam balaa ñuy critiquer kenn c'est pas parce que rek dañoo dégg mu wax nangam rek dañ ko war a critiquer mhm. bal li fi nekk mooy mhm. natarabbasu dañoo war a teeylu mhm. wa natasabbatu ba pare ñu saxal lu wax ji wa natami'u te ñu daja dajak bihim ci ñooñee wa nurasiluhum bu bu dañuy yónnenteeg ñoom leetar sax ñu yónnenteeg ñoom leetar wa naqturu waaw kay mu ne wa naxturu bu ko defee ñuy bàyyi xel jawaaba amrihim seen tontu yi mbir fa waaw fa imma ndaal an yaatare fa ci ñu nangu reconnaitre wa im maanaam mu reconnaitre wa imma ndaal leneen tamit mën naa ne mooy an yuñ kira ci mu diingat fa an yaatare fa bu nangoo fa mu ne bizalika ci lolom araf ci lol ne kat ah man kat nanguna ni li erreur la mako waxon waye erreur la arif na ci la xamé wajha sawab walu li jub alladhi bi nga xamné aradahu mom la namon ci wax ji fa in radiya bihi fa in radiya ndem geureum na bihi ci wax jooju al ulama borom xoxo manam su nangone ne wala boog su nangone mo d'accord na ne mo wax wax ji voilà kon kon ñu jëlat foofu fa in fa in rad fa in i'tarafa bu nangoo ah mm-hmm. mm-hmm. ne moo bi daalika ci wax jooju mm-hmm. arif naa boo xam te ne xam nañ wajaxa sawaabi wàllu jub wàllu jàpp dëgg allazi bi nga xam ne araadahu moom la namm bu fekkente ne xam nañ lool fa in radiya bihi su fekkente ne gërëm na bihi ci wa jooju la wax al ulama borom xam-xam yi qul naa dañuy wax bihi ci jooju wax wa lam yardahu buñ ko gërëmul ñoom borom xam-xam yi wa ankaruhu ñu diingat ko jumlatal lépp nazar na dañuy xool fi am amrihi ci mbiru waa jooju fa in rajaa anhu su fekkente ne dafa dellu ci waxam jooju mhm. taradday na ñu daal di gërëm lool ak rujuwaata dellu gi mu delloo ci loolu mhm. ci waxam jooju mhm. wa in dammama waaye bu teg tegtalee rek alal xataay hmm? maanaam ci njuumte gi fa hunaalika foofee nag yajuusu lanaa ca lay dagane yajuusu ca lay dagane lanaa ñeel nu ishaata ñu siiwal zalika loolu alkalaam mm-hmm. waaw mm-hmm. googu la maanaam ñu ñu wala boog ñu ñu diingat googu wax mm-hmm. an shafaqatin googu la kàddu an shafaqatin wëllif nag ak euh, euh, maanaam euh, ci maanaam warul nekk loo xam te tamit dañuy yàkkamti min naa mu tukkee ñu ñun alayhi ci kawam maanaam du ne dañuy bëgg di di di ko critiquer rek déedéet dañoo war a dañoo war a malgré nous daal lañ lañ ko war a def mhm. voilà wa ala man yattabi'u ak ci ñi xamante ne ñoom ñoo koy topp laa bughdan mhm. maanaam kon dañ ko war a def fii mooy boo résumé voilà xaara xaara ba mu pare dañ ko war a def ngir maanaam Euh, waruñu ko def ngir ngir ngir bëgg dal seen kaw mais am shafaka shafaka mooy yërmande maanaam dañ ko wara def ci yërmande goo xamante ne parce que dañ koy siwul ak di wax naan ki dal limu def du ni limu wax du ni il quoi. voilà maanaam lool le fait que ñukoy def c'est parce que dañ leen a en fait parce que waruñu ko buñ leen bàyyee dañuy sanko donc il faut que ñu ne ki ci li muy def du nii mais nag gis nga procédure bi mu la wax. voilà dafa am procédure dégg nga mu ne waaye laa buux dal waruñu ko def ngir bañal anhu ci kooku de mm-hmm. noo loxoo ñeel ko bokk mm-hmm. wata saf wata saf yal saf aka maanaam def ko ngir euh, ngir ngir ngir <laughs> seet dal suñu xol saafaro saafara woo loolu maanaam xam nga am na ñoo xamante ne le fait que ñuy ñuy attaqué euh, kii de loolu day day day seen xol mm-hmm. day tax day mel ni dañ ci saafaraw. damaa tëb de damaa tëb. déedéet. damaa foofu la. dégg nga. Mhm. ci ci wàllu maanaam ak noonoo. Mhm. an nafsiya buy ko jóg bakkan. Mhm. waaw maanaam waruñu koo def daal ngir bañ leen. wala ngir sox soxor seeni mbir ak tamit ngir maanaam di di di. di di di ko serale suñu xol suñu len di dal suñu len di dugg wala boog ñukoy def ngir nono leen dedet dañ ko wara def ndax dañ leen a ay julit lan vraiment ñuy sanku ni lool dal jaadul ñom ak ñi leen di topp waruñu leen ñu leen bayyi ci nono kon donc dañ dañuy dañuy critiquer voilà ndax lool ah, il faut ñu xol vraiment intention bi tax ñuy critiquer hmm. est-ce que lam ñu ci yob moy bañ nit ñi sanku Mhm. wala parce que diou djoum nañu yakamti mu djoum boñu ñu mhm. corrigé ko. Hmm. benn intérêt bi ci djoum voilà. Hmm. yalla nañu yalla sàmm. <laughs> mu ne waa hadal amru gis nga bi la bir xal ak a man yaqaluhu ku koy def al ana tay ji ni ni ni nii minan nasi ci nit ñi mom jamonoom. Mhm. mu ne fa inna li wér moy mooy xaalibal aqran li upp ci mas gi suñu mas gi. xat deug deug am matal na len manam euh, euh, lambo na len ba dar daj kàpp alxasadu ak iñaan mhm. wa kas wa kasurat te bari na mhm. ak doxaa ini ak bañeeli ak soxorante mhm. falaa yakaaduuna xawuñu sax abadan faw abadan faw yusbituuna di saxal wala yetaba yetasabatuuna bokk di di sàkkoo saxal fii kalaamin ci genn kàddu goo xamante ne sami'ahu dégg nañ ko an ahadin mu tukkee ci kenn min aqranihim ci seen maas wa ahli asrihim ak seen ñooñu jamono waaw wazalika te loolu xam nga lan moo tax du ñu sax jéem a seet wax ji ba xam dëgg laa ak dëgg mhm. comme tey ñoom bu ñu déggee ni ay ustaas di wala ñu di wax na nangam mhm. ñu sax jéem a seet est-ce que wax ji dëgg la wala déet mhm. ñoom le temps que biñ koy dégg rek ci la ñuy commencé critiquer di dugg te duñ ko sax jéem a seet nee na xam nga lu taxa mu ne wazalika ndaxte loolu li tax mooy xaw fan dañuy ragal min wu ji bu tukkee ci moom an yata ba yenn ci mu bir za mbir mi biir zalikal kalaamu googu kàddu kase ban nekk loo xam ne dañ ko fenal an wu walif ko waajooju hmm. ah sëriñ diw de dégg nga li mu wax wala dégg li mu def hmm. ñu ne ah lan la rek ñu daal di wax rek nga daal di commencer critiquer doo sax jéem a seet ba xam dëgg la wala du dëgg lan moo tax ñu ne parce que dañuy bañ bu waa ji jéemee seet mu nekk dëgg mu vérifier gis ne ndekete ah oui ndekete waa dañ ko sosal affaire bi loolu lay bañ loolu lay bañ a découvrir mm-hmm. a découvrir sax ci ndekete waa ji ko doon nax day euh, information bi c'était intoxication yàlla nañu yàlla sàmm waaw ah mu ne falaa yaxsalu du amee lahum ñeel leen gis nga lahum la alif bi day dind ah mm-hmm. garadahum ah seenu namm-namm seenu objectif mi na aza ci lor mm-hmm. ak wax wax yu ñaaw gaañ li zalika shaxs ci ñeel boobu la jëme ci boobu la nit mm-hmm. fa fa hada loolu nag sababu mooy sababu tarki bàyyi gi ñuy bàyyi tasabbutihim ci jéem a saxlu xabaar boobu ba xam dëgg la wala dëgg wala dëgg mm-hmm. li tax mooy day ndax kon seen objectif te mooy wax ci nit kooku lu ñaaw day daal di mën a teggee ko te boo ne ma ustaas di wax na nangam wala sëriñ di wax na nangam moom ma xool ko wala diw sàngam moom di moom waaw dañuy wax nit di la wala ne borom ko xool wax na nangam eh ma bañ ko vérifier parce que su ma ko vérifier mën na ne ne damay gis ne ndekete dañ ko wax sosal léegi de ce fait man damay basé wu ci information boobu mu nekk dëgg wala mu bañ a nekk dëgg au moment où dégg naa ko rek damay commencé wax ni non non sa way wolof yi nag du ñu sos du ñu yokk du ñu sos dañuy yokk rek donc ce qui veut dire que ni affaire bi am na léegi nag commencé dal kooku dal

ñaata lañ lay wax ne le politicien sàngam wax na nangam wala def na nangam te duñ ko vérifier duñ jéem a xam sax ba xam dëgg la ci journal bi rek lañ koy gis wala ci internet bi wala ci télé bi après ñu daal di commencer critiquer jékki-jékki on voit que ni ndekete information bi ñu joxoon soit du dëgg suwat dafa am luñ ci dagg loo xamante ne waxuñu ko ci parce que buñ ko ci waxoon affaire bi du ñaawee ni ñun niñ koy gisee wala et cetera et cetera ñaata yoon la la ñuy dal loolu par

mu ne waxati dëgg-dëgg saara mujj na aksaruma mhm. aksaruma lu ëpp ci li nga xam ne yasma yasma dana ko dégg al insaanu nit mhm. fi hasa zaman ci gile jamono alkasi ba mu nekk fen mhm. lu bari ci lu nit ñi di dégg jamono ji ay fen la hmm. waaw te ñoom moom jamonoom ñoom la doon wax qu'est-ce qu'on doit war a ndax néewu sàmm anil xaw di ci di xuus fi enrage naasi ci deru nit ñi néew gi mu néew loolu la intaha wax ji foofu la jeexee wa qaala wax na ahmad ibnul mubarak alcheikh ahmad ibnul mubarak allamti rahimahullahu taala wa radiya anhu fi l ibris ci téere bi ñuy wax al ibris mooy al ibris min kalaam eh, eh, min saydi abdul aziz radiallahu anhu wa haadihi mu ne gis nga lii ni tariqatul munkirina mooy yoonu ñi nga xam ne dañuy diingat wa aadatihim te mooy seen aada sax laa tajidu doo gis ma doo daj doo gis maahum ànd ak ñoom illa taqsira lu dul ak gàttañ lu attaam bu mat sëkk maanaam kàttan gu mat sëkk ngay gis ci ñoom doo leen gis mukk ñuy jéem a seet ba xam liñ leen information bi ñu leen jox dëgg la wala déet ñoom ni information bi rotee rek mm-hmm. waaw ba pare nag bëgg ñu di leen gëm suur parole xam nga nit ñi dañoo da day waaw yow information yi nga ma mës a jox yëpp benn du ci dëgg nga bëgg ma di la gëm suur parole mm-hmm. te te te te te eh, saa yoo nee ma diw wax na nangam diw def na nangam mm-hmm. bu ma nee naa ko vérifier ba pare doog cee wax yow da nga naan ma non jaru ko kii il faut croire non non non maa la ko wax ah non déedéet je vérifie d'abord bàyyi rek ba ma vérifier après je vais commentaire ah. bu ma vérifier te loolu li may arrivé ak a bari hmm. ça ma vérifier gis ne lañ ma waxoon du dëgg man presque yoonu yoonu yoonu côté la daanaka xawuñu maa jox information boo xam ne dëgg la subhaana rabbi à chaque fois ba pare gaay dañu bëgg nga nga duggu kenn nga xass ko nga wax ci mom ñoo sur seen wax ñoom manam nga tek ko ñoom ci seen wax wala nga tek ko ci luñu gis rek ci net bi juste parce que dañ ko gis ci net bi wax nañ ko déedéet kan moko wax ci net bi koku kan la est-ce qu'il est digne de confiance ce gars-là bi poster affaire bi ci net bi c'est qui est-ce que koku digne de confiance alors man xaw ko ngeen bëgg man ma critiquer koku ñu jël sama yu yu yi ma defoon yépp di ko jox kii te ah man du ma ko def ah man moom du ma ko def man de wax leen man du ma wax léegi <laughs> dégg nga <laughs> ah non <laughs> mu ne waxaat dëgg-dëgg waqaarat na li baax bi ñeen ñenn ci akaabiral fuqahaa yu fuqahaa yu mag yi <coughs> borom xam-xam fiq yu mag yi min asheex yi nag suñu sëriñ yi lañ bokk radiyallahu yàlla na yàlla gërëm taala kaanam anhum ci ñoom mm-hmm. kalamun kàddu fi haadal maanaa ci boobu la maanaa fa qaala lii mu wax ma yow man bés mhm. subhaana rabbi mu ne kenn la ci borom ko xoolal li mu wax li mu wax borom sëriñ bi radiyallahu anhu ñoom ay la yu ko mhm. ñu ah, ah, te pourtant xolal xolal xew-xew bi muy netali and ak loolu ñaan na yàlla ci sëriñam boobu ak sëriñ yeneen sëriñam yépp mu ne fa qaala mu daal di may wax yow man bis yaa fulaan e yow diw maanaam yow ahmad eh, ibnu mu ne ko mu ne ma inni naka man kat aratu dama namm nasihataka ci laay la biir li mahabbat yi ngir sofeel copp gi sopp fii ka ci jëm ci yow mm-hmm. ndax sopp gi matuk ma waddati sama takko ci xol sama takko xol ilay ko jëm ci yow maanaam bëgg bi mëna bëgg dafa tar mhm. géeju gi ma géeju ci sey mbir fa qultu maniko ya ko sayyidi yow sama sanga hubban lol day sopp nako man dal mangi mangi manam lol dal kontan wa karamatan te teranga la sax mhm. wa ala raasi te dina ko tek ci sama bop wala ayni ak sama beut lol nak expression la mhm. maanaam daa dam ko tek sama bop ak sama beut manam moy lo mo wax ko nangu lol la dal wal wala fa qaala lii mu mhm. ah annaasu nit ñi kulluhum ñom ñep ala taraf ñi ngi ci ben walu oo te yow wax daka yow kenn mhm. ala ñi yow yaangi ci benn wàll fii rajulin ci ben way bo xamne mhm. ah alim ta xam nga kashfahu kashfu gi mu amé wa wilayatuhu ak wilayami bi mu amé te kat annaasu nit ñi fi ci ci ci ci ci alal intiqad ñi ngi di diingat wa ante te yow kat fi ci waajooju alal i'tiqaad yaa ngi ci pas-pas gu mat sëkk mhm. bokk na ci li nga xam ne moom mënta ne mhm. an takuna ci nga nekk yow wax daka kenn yow kese mhm. alal ci dëgg mu daal di tudd nag kalaaman kàddu min ci googule maana mu ne haadihi lii nag zabdatun lenn maanaam lii mooy daal l'essentiel wax ji waajooja wax maanaam l'essentiel wax ji ma waajo wax waajo dafa maa taxawloo sama sëriñ la woon manam neena na ab serignum lo won bu bu yàgg bu mu bu jang yon ci mum fiq mhm. neena na waji waa ji ci bokkalu ponkalu borom xam-xam fiq yi la bokk na mhm. radiyallahu anhu mhm. neena bi mu ñewé dañ ko ah yow nak ah, bëgg gi mëna bëgg ak vraiment hein ah, naw gi mëna naw et cetera wax dal lañ tax na vraiment bëgg na la lay bir mu ne ko ah lool kay dama ci contane vraiment ah, lool teranga la sax ci man lo ma wax da ko naw bismillah ma ngi lay deglu mu ko yow Euh, en ni ko yow daal nit ñi comment ça se fait nit ñëpp nekk ci benn wàll yow nga nekk ci geneen wàll. te mooy la sëriñ bee ko ko wax. Mm-hmm. sëriñ bi moo ko ko wax. Hmm. sëriñ bi ne ko yow dafa am benn waay yoo xamante ne moom nga topp waa ji yow rek yaa ne daa am kasu yaa ne daa am wilaaye gu rëy ñi ci des ñëpp dañ koy diinga yow rek yaa d'accord ci mbiram mooy Cheikh Abdoulaye Dabakh la doon wax radiyallahu <laughs> yow rek yaa d'accord ci te c'est impossible nit ñi ñoom ñëpp ñu nekk ci erreur yow rek nga am dëgg gi comment ça se sa way xoolaatal affaire bi maanaam moom daal mu ne mu commencé di di wax di wax nee na ma ne ko mhm. pour wax la ne la maanaam fii day fiir da dafay am benn affaire bu muy leeral mhm. maanaam fii dafay wax ne nit ñi en li ñuy dégg mhm. manam ay undi undi undi undi nenañ nañ nee deg nee nañ dégg wala dégg naa voilà ñoo sonal nit ñi lu ci bëri nak du deug mom loolu la lay wax fi loolu la la bëgg wax fi ni quoi mu ne mhm. fa qultu ko yow sama sang mhm. min tamam bok na ci matak nasihatika mhm. sak lay bir li ñeel ma an tujiba ci nga tontu ma amma azkuruhu ka ci li nga xamne wala li nga xamantene mom la lay tuddal li ma lay tuddal nak tamit boo bëgg boo ma bëggee vraiment laay biir laay biir gu mat mhm. man d'accord naa li nga may wax mais nag mais tontu ma ba pare ci sama question yi soo ko tontoo bu pare après man dinaa la dinaa xam ne ba xam laay biir nga ma bu baax wala déet mhm. dégg nga mu ne ko fa in ajabte nii soo ma tontoo anu ci lii tam mat dana mat nas an nasiixata laay biir gi mhm. wakaana te dana nekk ajru ka sak pay àlallaahi ci buur yàlla kese de rek rek rek laa yaakaar mu fayal ma la fa qaala mu ne ma izkur tuddal ma shi te lu la neex fa qultu ma ne ko yaa sayyidi yow sama sang alaqiitum ndax daje ngeen ak ar rajula waajooju wa sami'tum te dégg ngeen kalaamuhu ay kàddoom wa tabaaxastum te ngeen te nga maanaam gëstoonteeg moom maahu ànd ak moom fii amrin ci mbir minal umuri ci mbir yi xataa zahara mbete mu feeñ la kum ñeel leen maa alayhi naasu mhm. maa alayhi ci li nga xam ne looloo nekk an naasu nit ñi fii ci mbir mooma maanaam nit ñi li ñu nekkee li ngay wax ne moom la nit ñi ñi loolu lañ jàpp est ce que yow dangaa dem ba gis waa ji sëriñ bi ngay wax ba toog ak moom waxtaan ak moom nga dugg ak moom ci ay masala ba pare est ce que def nga loolu ba pare nga doog a wax ne ko nit ñi ñoo am dëgg man maa am toor ko laaj est ce que def nga discernement non est ce que non non est ce que est ce que def nga maanaam def nga sax maanaam li nit ñi wax naan man damaa topp benn waay joo xam ne tekkiwul dara nangam nangam kan dem nga yow ba gis waa jooju kan la est ce que dem nga ba wax ak moom nga dégg li muy wax nga toog ci jotaayam muy waxtaan wala nga toog muy ngeen ngeen def gëstu ci ay question ay masala est ce que mës ngaa def loolu ak moom bu ah? mhm. fa qaala mu maa laqaytuhu xat ko maa laqaytuhu musuma dajeeg moom xat benn yoon mhm. wala raaytuhu musuma ko gis aslan ci lu ci cosaan mhm. ci lu ñu joyal fa qultu lahu ma ni ko waqat taraxta mhm. waaw waqat taraxta dëgg-dëgg sànni nga alxayaa kersa wal xasamata ak wegel li ma bay nii li nekkoon sama diggante wa baynahu ak moom minal ah? minal ulfati ci maanaam euh, euh, euh, ulfati mooy ak ñi maanaam ak <laughs> tam maanaam ak miinante waaw kay ak miinante mm-hmm. wal mawaddati ak cofeel ak taruk cofeel mm-hmm. yaa saydi yow sama sang mm-hmm. ma zahara li nga xamante ne feeñ na lii ñeel ma fiikum ci yéen waaw maanaam maa zahara feeñu lii ñeel ma fiikum ci yéen mhm. illaa lu dul ne annakum nekk yéen ñii dal akastum da ngeen a da ngeen a wëlbati da a jaa ak sawaaba mhm. lu wax ju jub ji mhm. wa talabtum ngeen di sàqu al yaqiina lu wóor fii baatinin ci biiru loo xam ne laa yumkinu fii laa yumkinu mënut a jàppani fii ci mbir ci biir loola al yaqiinu lu wóor maanaam certitude da nga koo wër ci mbir foo xamante ne mënoo faa gis certitude mooy lan mooy on dit wu nit ñi dégg naa daal saawaay dégg nga li yëg nga daal saawaay li ñuy wax di ko ruumandaat yëg nangam nangam ci loolu nga nga bëgg xam certitude alors que certitude da nga koy seete ni fi ko war a seete waxta faytum te ngeen doylu fii baabil yaqin ci buntuk yaqin buntu mhm. foo xamante ne man buntu maanaam nga am am lu wóor mhm. bi zanni nga doy lu fa ci njort kese bal fi nekk a shakk sikki sàkka bal fi nekk bil if ki ci ay sos ay ay duur yoo xam ne wal baatil ak i caaxaan mhm. fa qaala lii mu ne ma fassir lii mhm. leeralal ma firil ma mhm. muraadaka sax nam nam bi hadal kalaam ci googu kàddu faqultu ma ni ko innakum naka yéen ida axadtum boo leen dee jàpp mi fii tadrisil fiq ci di jàng jàng ak jàngale fiq wa nuqila te ñu toxal lakum ñeen leen kalaaman ab kàddu fi kalaaman kàddu fi amin mu dawana jële ko ci mu dawana aw wala boog tabsiratu tabsira bu allaxmi bu imam allaxmi rahimahullah aw wala boog bayaan bayaan mooy ak taxsir wal bayaan ah ibnu rushd bu bu ibnu rushd wa jawahir ak jawaar bu ibnu shash ibnu shash wa naxwaha wa naxwaha ak yu mel noonu min dawaawinil fiqi ci téere fiqi wa am wa am kanat kum te mu jàppandi ci yéen muraajaata delluwaat ci haadihi usul yooyu la cosaan yooyu la téere mm-hmm. fa innakum naka yéen laa tafiquuna doo leen doylu mukk bi naqlil waasitati mm-hmm. ci toxalu ki digle ma dig euh, dig digle ba mooy intermédiaire ba xatta mm-hmm. tanzuruha mbete ngeen xoolal ko bi anfusikum ci seen bopp maanaam yéen walaw wala xanaa walaw kaanat donte nek na alwas alwaasitatu deg deg le ba moy intermédiaire ba mislam nu ma ibn Zarruq la Marzuq la bind fi ibn Zarruq wala ibn Marzuq wal hattab ak al hattab mel ni ñooñu kem ñooñu la wa sahibu tawdih ak borom at tawdih te moy imam khalil khalil moy mo bind at tawdih wa nahwuhum ak ñu melni ñooñu fa hada lii kat baabu zanni koku buntu njort la na mm-hmm. ko mel ni yéen talab maanaam ci buntum njort mooy xam fiq parce que fiq bi maanaam wax ne par exemple téere bi tey bu bu bu bu bu kenn ne euh, exemple maanaam daf ko jox exemple ne ko tey buñ nee leen euh, benn sëriñ bu mag comme Ibn Marzuq bi ak ñoom euh, Ahmad Zarruq ñoom ñom khalil ñom ñoom xalil ñoom xattaab yees alayhim toxal nañ téere yoo xamante ñu ko jël ci jawahir ibn Shas wala ci bayan bu ibn rusul tahsil wala bayan ak et cetera mu jox ko ay téré yu man ah comme Tabsira bu Allah al rahimahullah et cetera mooy al al-Fatiha et cetera ñoom ñu laaj yow tey wala ñu ne mu dawana bu ibnu qasim raximahullah maanaam bu imam malik raximahullah ñu ne léegi euh, nañ ko xool nañu te ñoom maanaam ñu bind ko ci seen téere yi même bu dee ñooñu ñoo ko bind seen téere yi nii la par exemple comme tey par exemple nit bi bind téeram pour joxe exemple bu gën a simple ne ci saxeexul Buxaari am na xadis bu wax nangam ak nangam ki la ko wax lu mu wóor wóor wóor yow tey bu dee yor nga saxeexul Buxaari yi ci yow bu dee la mi ngi ci nangam xadis numéro sàngam da ngay daal di dem jëli ji xool est-ce que dëgg la wala déet te pourtant mën na nekk ne loolu téere boobu cosaan bi sax juum te dafa am maanaam mun na nekk ne édition bi nga yor daa am imprimé <laughs> dafa juum mën na nekk mais yow ngay jéem a seet dëgg foofu te pourtant njort foofu am na fa mu ne waaye ah mu ne wakka annakum kon dafa mel ni yéen talabtum dangeen di sàkku fii ci moom al yaqiinu lu wóor xayso mhm. te fekk nag de lam taktifu la un ah, lam taktafu fu leen doylu fii ci foofa bi naq la odooli ci toxaluk ñu maandu ak siqaatu ñu wóor al asbaat ñe sax ña mooy ak al sabt xatta baasatu mbete ngeen gis directement al amra mbir mi bi anfusukum ci seen bopp yéen ngeen gisal mbir mi seen bopp mhm. wala yumkinukum bu ñu bu ñu daanalee bi mu jeex insha allah mm-hmm. wala yumkinukum te jàppandiwul al yaqiinu mm-hmm. lu wóor fii ci bërëb boobu abana mukk mm-hmm. wa innama li am ba des mooy aaratum da ngeen a gaaral foofu zannan njort boo xam te ak aqwa moo ëpp doole di zannin ci njort koo xam ne adaafu moo gën a doye de minu ci moom fa inna ndax li wér wóor mooy naqlal waasita toxalu dig dig la maanaam ke dig digal moon intermédiaire boobu as-sabiqata ka jiitu aqrabu moo gën a jege min ci ñun ci ci ñun ilayhim ci ñoom jëm ca ñoom ila sawabi ci la ci ci njub maanaam tey tey par exemple su ma gisee ci benn téere Ibn Hajar par exemple rahimahullah daat ne saxeexul Buxaari xadiis bi nangam mi ngi fi wax yooyu man ma dem sama saxeexul Buxaari bi ma yor ma gis ne li ma wax peut-être erreur man sama saxeexul Buxaari yi jub ak sahih bukhari bi Ibn Hajar yi ban mo gëna yanu mana mom bi mu yoro mo gëna yanu mana te pourtant damay jéem a vérifier est-ce que Ibn Hajar rahimahullah lim wax na mi ngi ci sahih bukhari hadith numéro sàngam mooy jéem a vérifier est-ce que loolu am na te andak ne même bu juumee même bu ma jàppee ne dafa juum man ma wara xol est-ce que du man sama édition bi mo juum ànd ak ne bosam moom moo mu jub moo gën a yanu maanaam loolu la bëgg a wax fii dégg voilà mu ne kon nag min yi ndax lan ndax ci wàllu qurbi zamaniha jegeeg jamonom ilaa mu allafil kutubi saabiqa ilaa mu allafi ci ñettaali al kutubi téere as saabiqati yee jiitu maanaam le fait que ñu jiitu maanaam ñu jiituñu gën ñoo jege époque bi moo tax seen téere bañ a am maanaam ñoom seen édition yi ñu doon yor bañ a am erreur moo gën a jege que suñu édition yi yor ba a am erreur voilà. seen wax moom mooy gën a taxaw que ñun suñu yos ah. Mm-hmm. mu ne fa innahum li yor boor mooy ñoom aqrabu ñoo gën a jege ilayhim jëm ci ñoom min naa ci ñun bi laa raybin ci lu amul benn sikki sàkk mm-hmm. wa min jihati ak ci wàllu annan nusaxa mm-hmm. nekkat lu sax yi mooy mooy édition mhm. allati yi nga xam ne àndal waasitati ma ngi ci dig dig dig digal boobu mooy intermédiaire boobu mhm. min hadhihi al usul ci yooyu la téere cosaan mhm. marwiyat ni yi nga xam ne dañ koo solo bi tariqin ci yoon min turuq riwaayaati ci yoonu riwaaya yi solo yi ñoom lool la maanaam parce que ñoom bu ñuy solo téere yi dañ ko daan solo ci riwaaya bu leer téere bi yëpp dañ ko daan jàng ci benn sëriñ sëriñ boobu téere bi yëpp da ko jàngoon ci beneen sëriñ sëriñ boobu téere bi yëpp da ko jàngoon ci beneen sëriñ voilà kon ñoom mu ne am maa nax nu am maa ñun nag fa amul riwaaya danaa ci bu nekk ci ñun mhm. ñun téere yi lu ci ëpp ci côté ijaasa rek lañ koy amee lañ koy jële mhm. kon ñun ak ñoom yomuñ mhm. ñoom dañ ko doon toxal point waaw par exemple kii day bind téeram bu bindee téeram ñëw toog jàngal ko taalibe yi taalibe yooyu recopier ko moment bi mu leen koy jàngal après ñu xool vérifier ñoom tam jàngal ko seeni taalibe ñu am riwaaya bu direct yoo xam te ne ñooñu noonu ñoom noonu lañ amoon nga xam ne téere yëpp dañ ko doon am ci riwaaya bu leer moo tax ñoom pare exemple nga gis c'est euh, bu ñuy tàmbali seen téere yi ñuy bind euh, diw moo ñu jëlee nañ téere bi ci diw kooku jëlee ko ci diw téere népp téere bi yëpp loolu moo gën a dëgër ñun suñu euh, suñu édition yi ñu yor mm-hmm. waaw waaw dégg nga mhm. mu ne wala nusax du du caageen maanaam ay nus nusax mooy édition saxiixatu yu wér min yu tukkee ci moom mhm. fa minal jaiz kon man naa ne an takuna ci mu nekk nusxatakum seen nusxa yi ngeen yor mooy mooy seen édition yi ngeen yor min ci boobu la téere mhm. zaadat mu am lu mu yokk aw wala boog naqasat mu am lu mu wàññi fa bi ay yi yaqinin kon ana ci ban yaqin ban lu wóor turaddu la ñuy delloo naqal alxataabi dell toxal gi alxataab toxal min ha ci yooyu maa wujudi haadayn maa wujudi ànd ak amuk haadaynil amrayni ñaari mbir yii ma la wax fii yu nekk ci téere yooyu ci mbir yooyu ci mbir moom mm-hmm. maanaam mooy ñoom ñoo ñu gën a jege jamono ba pare ñoom riwaaye yu leer lañ daan am dañ daan jàng téere bi complètement ci sëriñ bi kooku jàng ko complètement kooku ak ay toxal yu leer yoo xam te ne seen sëriñ yi dañ daan vérifier et cetera wa faq wa faqduhuma ak te te te yooyu dañoo fàddu fii ko ci yow mu ne wa am ma ndaal nag innakum yéen iktafaytum da ngeen doyloo bi zanni ci njort min baabil yaqiini ci buntu goo xamante ne nag lu wóor mën na caa nekk yi nga xam ne yumkinu ma jàppandi la fii ci ci ci ci ci ci loola maanaam lu wóor jàppandi na ci loola fa inna hadha rajul gis nga waa ji ngay wax allazi bi nga xamante ne balaxaka jot si na an jote na la anu jugi tukkee ci moom maa balaxal li li li li mu jote ci maanaam li yegg ci yow ci information mm-hmm. gis nga waajooju ngay wax mm-hmm. mu ne ko waaw mu ne ko mawjuudun ku ku ku nekk la ku existe la hayyun te mi ngi dund haadirun ku teew la maaka ànd ak yow fil madina ci bii dëkk mhm. Fass mooy Fass ngi fii mhm. koo mën a gis la mhm. lay sa bay naka déet nekkul sa digg bay naka sa diggante yow wa bay na ko ak diggante masaafatan ak distance bu sori amul wa maarifatahu te xam ko moom saadatun texe rek moo ci nekk la shaqawatun texe di amu ci mhm. wa baadaha ah, ginnaaw googu ginnaaw loolu yépp in waffaqa allahu ndem dëppale na in waffaqa ndem dëppale na allahu bur yàlla li mahabbatihi ci sopp ko wa ilqaa ilqiyaadi mhm. ak sànnik sax wo ak wommatu ilayhi jëm ci moom mhm. Ah? loolu yépp dana mën a ne maanaam bu fekkente ne xam nga ko te ginnaaw loolu nga wommatu ci moom topp ko kooku texe rek moo ci nekk texe di amu ci mm-hmm. waxarte dëgg-dëgg am ka naka jàppandi na ci yow al wusulu jokk ilayhi jëm ci moom xattaa tataqida mbete mm-hmm. nga am fas-fas bu leer fa tasada bu ko defee nga texe wa tarbaxa nga tonawu mm-hmm. nga am bénéfice aw wala boog tan hmm? tanqida maanaam nga diingat bu la neexee tunqida waa nga diingat Mm-hmm. fatar jaa nga dellu ba mm-hmm. yaxsul la ko waaye daal lu mënti xaw moo xam da nga koo nangu ay mbiram mm-hmm. mais daal comme dem nga ba gis ko nga toog et cetera xam nga léegi kan la xam nga lu mu mel xam nga ni muy xalaate xam nga li muy wax xam nga lépp léegi bu dee am nga pas-pas nag nga ne ah oui ay la yéwén kii wala yu wax la chien kii de man alhamdulilah bi ma ko xamee nga dem topp ji ko yéen bokk dëkk bi kenn mën nga vérifier loolu sinon boo ko xoolee xam ne effectivement lu nit ñi wax ci moom moom kii daal ndekete du dara nee nga bàyyi ko nga dem mm-hmm. mais de toute façon ala kulli xaalin u yaxsulu dana am laka ñeel la mm-hmm. da nga jote lak ah, ah al yaqiinu lu wóor mm-hmm. bi am amrayni ci benn ci ñaari mbir yooyu wa tazulu te dana dàqu zulmata shakki lëndëm lëndëm sikki sàkk min qalbiki ci sa xol ma topp nag innaka li wér boor mooy yow xanaata dangaa doyloo fi hadal amri ci boobu mbir Mm-hmm. ah arrabixu bi nga xamante ne wu tonawu la maanaam bu bénéfique la mm-hmm. wal xayru atte mu nekk yiw boo xam ne arrabixu bu noot la mm-hmm. allazi bi nga xam ne naqahu ak njariñam mu xaqakun lu wér la wa bu te boromam mu waffaqun ku ñu dëppale la bi naq waaw bi naq li ci ci toxaluk alfasaqate yi waaye yi nga xam ne war kasibata ak fenkat yi waaw wa kaanate nekk na min aadatika ci sa aada annaka nekk yow kat laa taqna'u mhm. doonoo doylu fii baabi zanni ci buntu njort wan naf'il qalil ak njariñ bu néew bi naqli siqaati ci toxalu ñu wóor ñi ak asbaat ña sax ña ay mbir ay wax xatta mbeta tubaashira nga dem directement al amra nga jàkkaarlu nga gis mbir mi bi nafsika ci sa bopp mhm. maanaam yow comme téere yi sax yow buñ la sëriñ yu njëkk ñi bu ñu bindee ni téere sangam nangama yi sax yow dangay bëgg di dellu ci loolu pour am vérification bu gën a wóor mu gën a simple lu tax defuloo ko te sa maanaam sa. moo gën nga nekk fii di wax loo xam ne. voilà ci ay. waaw ci ci ay samba booy rek nga ko dégg. ñoo mhm. xam ne ay kàccoor la ngay fekkat lañ. Mhm. mu ne. Mhm. Ah, mu ne fa la xalla ana lu tere woon jarayta nga daw nga dugg ala zalika ci mbir mii mhm. fi hadal baabu ci boobule buntu alladi bi nga xam ne huwa mooy baabul yaqiini buntu gu wóor mhm. wa naf alladi ak jariñ bi alladi bi nga xamante ne huwa mooy saadatun ak texe max nga xam ne texe kese la alaysa hada xanaa nekkul lii minkum di tukkee ci yéen radiyallahu yàlla na yàlla radi yàlla na gërëm allah bu yàlla taala kawanam ankum ci yéen yàlla na leen yàlla gërëm ànd ak yi ak san xanaa lii nekkul ak san di lu ji jiwóotle maanaam lu lu wuute maanaam lu lu contradictoire li sawaabi ñeel lu lu jub li ñu waroon def fa qaala mu daal di wax radiyallahu taala anhu sëriñam ba yàlla na ko yàlla gërëm nee na qataatani dog nga ma bil xujjati ci sa lay yu dëgër yi nga ma lay wallahi waat naa ci yàlla ne maa yumkinu naa mënun jàppandiwul ci ñun aljawaabu tontu an hada ci lii nga ma wax mhm. ba faw wa ashhadu te wa ashhadu mhm. maa ngi seede ala yecc sama kaw mhm. bi am nii nekk man kat taa'ibun aji tuub laa ilallaahi jëm ci yàlla waaw foofu la foofu la histoire ba yam waaw sinon ginnaaw yi après muy maam muy leeral la yeneen mbir yu mel non ala kulli hal kon fofu la histoire bi yom pour wax ne pour wax ne dal wa sega manam fi en gros lim fi beug wax moy sega bi nit nit rek déjà waro de doxale non nit nit kess information ni ngay jox ni rek nit bu ñewé rek gett li la ben affaire diw wax na nangam diw def na nangam diw dal di nga xew ci mom lolu rek waro doxale non nan ngay xalat ci borom xom xom yi lan nga xalaat ci borom xam-xam ñun ci nit yàlla ci nit ñu baax ñi nga xam ñooy taxawal diine lan nga xalaat si ñoom ñu lay nettali rek def nañ nangam wax nañ nangam nga koy gëm. kon ngay vérifier est dëgg la est dëgg la ah boo ko defee dañuy nag compliqué mais dañ koy laaj est-ce mm-hmm. ak koo ku la ko wax yow foo ko xam est-ce que ko gis gisuma ko yaa da nga kaa dégg ñu koy wax déedéet waaw léegi nga bëgg wax ne loolu moo xam ah non non non léegi xaaral man ba ma vérifier ba pare ma vérifier ba pare voilà <laughs> est-ce que moo ko mais yow te rawatina ay noonam ñooy toxal wax ses ennemis yi ñooy toxal ñoo ne ñoo ne diw wax na nangam wala def na nangam. wax na nangam def na nangam. waaw non mais man je parle dans la vie tous les jours fii dans la vie tous les jours loolu bis bu ne nga gis ko sooy gis surtout sénégalais yi soo toogee ñoom 10 minutes nga dégg ñu ne la diw wala diw wax na nangam wala def na nangam buñ la yawee. buñ la yabul nag moom dina ñuy commencé di def attention balaa ñu lay wax dara ñu vérifier ko d'abord mais euh, malgré loolu il font des efforts mais euh, malgré loolu parfois euh, ils passent à côté quoi mm-hmm. à côté yàlla nañu yàlla sàmm allah alayhi wa sallam subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al